نوغن لام دي جول بيري يارا ري ماك جي جال فوت تور نوادل رينك المامي عبد بوكر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بقي صفو سين شان بي دي خمس مريو تي في نو دي نيو انت زيارة فسيني دلو سيكي سين اميشان بي ñu xam sam réew ci juróom-benneelu xaaj jëm ci diggante Serigne Touba ak tubaab yi xam ngeen ni ñëwoon nañu ak yéen ci juróomeelu xaaj bi ba tubaab yi nga xamante ni wala tubaab bi nga xamante ni moo doon commandant Ndar l'administrateur de Saint-Louis di Leclerc te ñu yónni woon ko ngir mu jël ci sëriñ bi la nga xamante ni bii xaatim na ko bind na ko walla karmat na ko di nettali aw yoonam waaye xam ngeen ni lu jiitu muy jël ci sëriñ bi ca weeru suliit wa demoon na demuk nemmeeku ci jolof ba defoon ca ab rapport nettali aw yoonam waaye ba ñu tàmbalee ba léegi li ñu indi lépp ay tuumala ndax juróomeelu xaaj bi nu génn moom mi nga xamante ni mooy l'administrateur de Saint-Louis moom li tubaab di wax wax ak tontu dialogue boo xamante ni da koy janeer moo ko imaginé digganteem ak sëñ bi bu ma demee lii laa koy wax lii la may tontu lii laa koy wax lii la may tontu def ko ci rapport am noonu yi man koo jël def ko waxi Serigne Touba te Leclerc mooy waxal boppam di tontul boppam ndax ma ngay wax naan ngànnaay yi nga xamante ni bii ñi ngi woon Mbakke Bari boobaak léegi juróom-benni weer soo demee laaj ko sëñ bi danaan la dëkk bi de ay ëllëer rek a fi nekk waaye ngànnaay nekku fi wala ngànnaay lu fi nekk ku fi jaar di jàll ab tukkikat moo ko fi indi waxit ni gaal yi nga xamante ni ay téeméeri téeméeri gaal la woon dañu ko jël rawale ko yóbbu ko <laughs> yóbbu ko Touba te boobaak léegi téeméeri at ak lu topp du ñu la indil mukk ni sëriñ Touba mas naa soqi soxub fetal walla fekk nañu ak fetal ci barabi sëriñ Touba yi ba ca daarul mannaan gi nga xamante ni bii l'administrateur de Tivaouane yónnee woon na fa aw rekk wax ni sëriñ ba dafa denc ay ngànnaay loole amut kon ay tuuma rek la yëkkati ñi nga xamante ni bii fal nañu leen ndax fi ñu ma doon jeexale juróomeelu xaaj bi wax nañu fa tudd ay nit ñoo xamante ni bii ndombal tànk yañ waroon a takk takkuñu ko lu ko waral dañoo ànd ak sëñ bi te ànduñoo tubaab bi tubaab bi xeex leen ba ndombay tànk yi ñoroon a am amuñu ko ñi nga xamante ni bii nungul nañu leen ñu fal leen ñoo ñooñu ñoo leen di nettali li ñuy bind ndax ci juróomeelu xaaj bi dégg nga muy wax naan am na léebu yu wax ca kajoor ni dammeel boo xamante ni xuloo nga walla meroo nga ku sant jóob wala ku sant loo booy boo nga takk say kaake te xam ni da nga folliku kon seen rej yooyu ànd lëkkaloo ak ñoom ñoo leen di nettali yu mel noonu di wone ni am na yaari sant yu am doole ci kajoor muy jóob ak loo àndi nañu ak sëriñ bi kon sëñ bi am na doole loolu rek lañ ci jublu kon maa ngi jeexale woon juróomeelu xaaj bi fa ñu doon wax ni ca Bawol day am na ko ñu doon wax Gànde Jéey te mu dëkk ci digg bi maanaam frontière Bawol Kayoor ak Bawol moom moomu day waroon naa falu doon mbay mbayaar waaye ay yëngoom ya nga xamante ni bii don na ko yëngu loolu moo tax faluwut yëngu bi mooy lan mooy ànd ak sëriñ bi mu wax ni Adama gay muy sëriñ Adama gay moom it doon mbokkum Lat Joor te doon kenn ci ñi njëkk a ci sëriñ Touba moom mu ni daal kon ngir jeexal borom doole yooyu yépp dem nañu àndi ak Serigne Touba mu ni Serigne Adama Gueye mi nga xamante ni bii mbokkum la joor la te dem àndi ak sëriñ bi mbokk ci ñi njëkk a jébbalu moo njëkk a jébbalu ci sëriñ bi mu ni moom moomee nag ak ñi àndoon ak dammel ak ceddu yépp nga xamante ni ci xare ci lañu daan dund ak lël alali jàmbur ak sàcc maanaam rapine te ñëw gunu ñëw lootaabe diggante kajoor ak bawol ak njàmbur tax na seen jëf yooyu ñu daan jëf daa ko dunde te mooy jël alali jàmbur nun noo tax loole mënatuñu koo def ba tax ñoom ñëpp ñu ànd dem fekki sëriñ bii di ahmadou bamba nga xamante ni bii ñoom nee nañu mooy mahdi ji war a faagaagal tubaab yi nit ñu weex yi ba léegi l'administrateur de Saint-Louis mooy wax ñoo ñuy fàq di jébbalu ci sëriñ bi nee na ba ci Adama nga ku juddu la mbokkum la la ak cedd yooyu yëpp nee na ci moyaal ak lël alali jàmbur ci lañu doon dund noog ñi nu fal noo leen xañ seen loole ñu daan dunde ba tax ñu dem ànd ñoom ñëpp fekki Ahmadou Bamba mi nga xamante ni nee nañu mahadila moo war a faagaagal tubaab yi ak seen nguur kon kalaam yi ma doon wax benn ngi nii bu ci bokk ñoom tubaab yi ragal sëriñ Tuubaa tiitoon ci moom ñi leen fi nekkaloon itam xamal leen ni leen li mu bëgg bu ko amee yéen di ngeen bëgg du ngeen ko am loolu moo taxoon ñu di leen wax lii ñu di ko bind mu ni nag ñoom caddo yooyu nga xamanteni ñu àndoon ak la jor dañu fekk ci sëriñ bi wax ni moy Mahdi bi nga xamanteni moy fagaagal nit ñu weex ñi mu ni nak ñom ñoñe amu ci kenn ko xamanteni bi diga di nga am gatch wala nga rus ci wax wax ñu wax mu ni nag ñoom bu ñu rusute wax loolu ñuy wax itam kii ñu fekkee di Ahmadou Bamba moom xam nanu ndax na ma ko waxoon nee nañu sëñ bi ñëw na ndar jébbal boppam gouverneur jébbal ko talibe yee ko toppoon loolu di tuuma yi gën a mag ci tuuma yi mu ni nag ñoom bu ñu waxee sax ni sëñ bi mooy Mahdi ba tax ñoom cedd yooyu ñu ñëw fekk fi taalibeem yi ko gëm yu fanatique yi taalibeem yu ëppal yooyu te ñuy mbooloo mu bari xamante ni ñoom ñi ngi wër tund yépp di waajal jihaad muy ger sent yow bi nga xamante ni nag yaay directeur des affaires politiques ak kilifa gu mag gi di gouverneur li ma leen wax ci ceddo yi faq jëm si ci sëriñ bi ànd ak taalibeem yu bari yi ko gëm lool tey wër tund yépp gox yi ak gox goxaan yi ngir di waajal jihad muy la guerre sainte lii ma bind bu ngeen ko jàngee di ngeen xam tolluwaay bu mag bi nga xamante ni sëriñ bi am na ko ak ñooñam ñii te bés bu fett soo rek mbir yi daldi di tàmbali maanaam caddo yi ñëw jébbalu ànd ak taalibeem yii di wër ngir waajal jihaad saa bu sëñ bi fett soo joxe ndigal rek loola yëfe day daal tàmbali dañu nuy daal di song ba léegi rek ci seen biir yi wax ragal sëriñ bi mu ngi ciy feeñ mu ni nag nun li nga xamante ni bii mën nañ cee am yaakaar fi nu toll mooy nawet bi ndax nawet du jamonoy xare du jamonoy jihaad waaye yaakaar naa lool ni bu nawet bi wàccee su boobaa sëriñ bi dana nu woon xar kanamam bi muy nëb maanaam nawet du waxtu xeex waaye bu nawet bi daanoo li ñuy xalaat li lépp dana am bu boobaa sëriñ bi dana nu woon xar boppam bi. te mooy li nuy nattable ndax dana am wala du am sëñ bi dana nu songu nawet bi do nga tax waaye bu ñu far màngoo sëriñ bi dana nu song mu ni nag du ma fi wax sax waxi kilifa yi nekkoon kajoor ak njàmbur ak ngiig mérina ak waalo kon lii nga xamante ni kilifa yi ma tudd ñu nekk Kajoor Njaambur Ngiig Mirina ak Waalo nga xamante ni ñoom ñëpp ànd nañu ci genn kàddu mooy sëriñ bi nañu ko jàpp yóbbu ko Gabon te buñ ko jàppee yóbbu ko taalibeem yi ñu dajale leen jébbal leen ñi nga xamante ni noo leen takkal ndombay tànk te ñu gëm nu lool ñi nga xamante ni bii ñoo ci gën dëgër bopp gën cee raglu dañu leen di tànn dénk leen kenn ci ñi nga xamante ni bii noo leen fal te ñu déggal nu taalibe bi yi nga xamante maanaam loolu mooy caddo yi maanaam ñi ñu wax ni dañoo àndoon ak Lat Joor di caddo te ñëw jébbalu ci sëriñ bi ñooñu la ñuy wax ni nanu leen jàpp maanaam lii dana feeñ ca kanam ndax conseil privé ba doon le 5 septembre léegi noo ngi ci 15 août 5 septembre ñëwagul waaye lii mu bind moom l'administrateur de Saint-Louis le clerc mi jëli woon sëñ bi te jébbal ko le directeur des affaires politiques bi nga xamante ni mooy bind rapport bi top. ci bii nga xamante ni juróom-benneelu xaaj bi ci la rapportu 15 août bi jeex maanaam moom mi jël si woon sëñ bi aw yoonam fi mu koy nettalee fii lay jeexee waaye rapport bi ci topp nga xamante ni ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru août la ko directeur des affaires politiques Merlin bind di bisub alxames ba bis ba dellusee ñu woo sëriñ bi ci bureau ba woo conseil bi ñu daje ñu woo le directeur des affaires politique mu ñëw jàng la mu bindoon une semaine avant sàkku ba muy jeexal ni leen dama bëgg ngeen xaatim lii ànd ci te loolu mooy jël sëriñ bi yóbbu ko Gabon taalibeem yi ñu jël leen dénk leen ñi nga xamante ni ñoom tubaab yi ñoo leen fal nga xamante ni kenn ci ñoom du balaa ngaa tukkeeti dangaa am autorisation ndigal lu euh, euh, chef de canton ba wala ka ñu la dénk may nga doog a mën a tukki kon mën nañoo wax ni dem sëriñ bi Gabon Leclerc mooy ki ko njëkk xalaat te wax ni xalaat bi du moom doŋ waaye kilifa yi leen nekkaloon Kajoor Njàmbur Ngiig Mirina Waalo te ànd ak tubaab bi ñoom ñoo ni woon sëñ bi daal ngir sunuy mbir mën a dox nañ ko génn réew mi yóbbu ko Gabon moo tax mu wax ci rapport bi ni ànd na ci li ñooñee wax sëñ bi nañ ko jël yóbbu ko Gabon ceddo yi jébbaloon ci ñoom ñu jël leen jébbal leen kenn ci ñi tubaab yi fal ñi nga xamante ni bi ñoom lañu doon wooye les talibés fanatiques te ni dañ doon wër di waajal jihaad mooy talibé yi àndoon ak sëñ bi nee na ñooñu nañu leen jël bàyyee leen ak buur njàmbur mi nga xamante ni bi moom moom mooy xalaat xalaat ba mu am ci ñoom ndax da leen di jàpp ndax da leen di tëj léegi daal nun nanu jël caddo yi jébbulu woon ci sëriñ bi dénk leen kenn ci sunu ñoñ ñi nga xamante ni bii ñoo doon ay taalibeem nag ñu jébbal leen buur njàmbur mi nga xamante ni bii moom mooy xool la ko soob ci taalibe sëriñ tuubaay yi mu def ko ca loolu fa la jeexale rapport bi mu bindoon ñetti fan gannaaw bi sëriñ bi egsee Ndar muy le 15 août 1895 ma ngay jeexal nag di wax yow gouverneur kilifa gu mag gi maa ngi lay jox sa wàccuwaay ki bind lii nag mooy sa liggéeykat bu la déggal lool te nga yónni woon ko ngir mu jëli Ahmadou Bamba man maa xaatim lii di l'administrateur de Saint-Louis Leclerc waaye nag wut naa ci benn maanaam copier naa ci copie conforme jox ko le directeur des affaires politiques Merlin copie conforme bi nak Bon ko Merlin C'est le Merlin sukkandiku bind rapport bobu mu def le 29 août jeudi le 29 août 1895 nga xamante moy rapport bi bëgg a procès verbal au conseil privé le 5 septembre dama ni procès verbal au moment des faits bu doon procès verbal ci biir bureau ba lañ koy bindee waaye directeur des affaires politique bind na ko une semaine bisu alxames ba alxames ci dellusee di le 5 septembre la ko jàng ca kanam conseil ba nga xamante ni le gouverneur Louis Guillaume Moutet moo ko jiite woon ba mu leen ko digtalee nag sàkku ñu signé ki ànd ca ñoom ñëpp ca lañu ñu ànd ca ba tax ñu jël dogal wax ni dañuy yóbbu sëriñ bi Gabon mbokk yi kon rapportu 15 août bi fii lay jeexee kon incha allah bi ci juróom-ñaareelu xaaj bi ci la nuy door rapport bi nga xamante ni le directeur des affaires politiques Merlin bind na ko alxames ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci wax set tatum junni ak juróom-ñeent ak juróom fukk ak juróom te ba ñu demee ci juróomi fan yi sattumbar atum juni ak juróom ñetti témèr ak juróom ñen fuk ak juróom mu indi ko jang ko ñu and ci jëlub dogal ngir yobbu sëriñ bi gabon kon ma ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaan rek ngeen and ak nun insha rabbi juróom ñaarelu xaj bi wala juróom ñaarelu pacc bi ci la ñuy door nak li nga xamanteni mom moom la ñu attee sëriñ ba suñ ko mané tuddé ab atté ci conseil privé bu 5 septembre xana di leen ñaan rek ngeen abonné ci chaîne bi ngir vidéo bu ñu dugal rek ngeen man koo am noo ngi sant bokk yi ànd ak nun di njañse maanaam commentaire ak ay taxaw seetlu ay contribution ñoom ñëpp am nañu mbégte ci ñoom di siyaare sëriñ Muntaxa Bachir moom Cheikh Mahamadul Mourtada ci États-Unis sëriñ Abdoul Aziz Touré xalifab sëriñ Adi Touré du topp fu nu toll du nu soññ waaye Alioune Badara Mbengue ak kuréel gii jàppale seen chaîne bi di Xam Sam Réew TV te nekk ca États-Unis ñoom ñëpp ñoo ngi leen di sant di leen gërëm di leen ziara di ziare bokk yi nga xamante ni ñëg nga Europe waaye di ziare ñu nekk ci biir réew mi kon fépp foo xamante ni waaye nga fa tey topp chaîne bi rek ñu ngi koy ziara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 daf ko biir nag laaw la ma faraañse ñoo gene lam de julbeere ñooro rey makki doom ji jàll fuuta tooro ñoo del roy nag almaami abdu buukar